képp ku la waxal yàlla rek képp ku la waxal yàlla képp ku la waxal yàlla procès bi bi ndaw si Sarr waxee ne euh, euh, euh, Sweet Beauté rapport sexuel masu faa am rek waroon naa tax procès bi yem foofu ban waxalee dëgg rek suñu boroom tax waroon naa yem foofu li nga xamante ne wax naka tey wute naa ak lu bëre li nga xamante ne jotoon na fen mu ñëwaat casser tous les pots maintenant moom. même ba si témoins yi sax ñi nga xamante ne ñoo ko war a témoin kenn ñëwul war nañoo xam ne li ay caaxaan la hmm? bi mu waxee na suite beauté rapport mosu fa am rek jeexal nay wax te yaakaar naa si li xam boog rapport sexuel moom euh, euh, euh, fu mu amul viol mënu fa am wala boog dafa bëgg a wax ay yeneen yi ma bañ a tudd te ba dee loolu certificat médical gi wér dina ko ah yërëm leen Sénégal ay te ngeen xam fi ngeen li ngeen di def. yërëm leen sénégalais yi yërëm seen boppa ndax lii dossier bii ba leen xalaat condamnation baleen leen xalaat condamnation ndaxte amul benn preuve baa xamante ne dax chargé Ousmane Sonko kon affaire condamnation teg leen ki su suuf bu fekkee ne bëgg ngeen réew mi am jàmm